ñu ne lii de gis ñu ko ci crédit demal nga toog waaw noonu la ko ñu turee waxee loolu dafa yomb ko hmm. donc bu leen ko kenn yombalal ñun ñëpp revendiquer seen hmm. parce que lii c'est le début d'un hmm. d'un d'un parce que ñu ngi boo xam ne kenn am ci ak te encore une fois loi électorale jox na accès opposition yi wala bokk ñu bàyyi régime bi déroulé lu ko neex ñaari option yooyu kese moo fi am nga nga nga am ful lay dëggal sa bopp parce que da ngay taataan baatu askan ay centaine de milliers de personnes ñoo la yaakaar bëgg la dénk ay ndombo tànk bëgg la dénk réew kon yow am na un minimum bu la wax ci sécuriser volonté askan boobu bëgg a jël seen euh, carte voter la yow yaa war a fexe li jënti ba ñu nekk ci ñu leen ci génnee ñu delloo leen ci pour que ëllëg li ñuy voté le vingt cinq février ñu mën a jóg dem seen bureau de vote sànni la carte bu fekkee ni loolu jaraloo ko yow mi aspirant à la gouvernance je crois que sa détermination ak sa mobilisation pour diriger Sénégal dafa parce que c'est combat de tous les jours mm-hmm. man daal maa ngi maa ngi naw taxawaayu Mimi Touré parce que def na conférence de presse daal di démontrer la supercherie loolu bu ko ñëpp defee pression day am ci ci ci DG ak conseil constitutionnel ñu teg affaire yi ci yoon parce que parce que dafa yomb comme on le dit. Hmm. dañoo ñëw ñu ne nekk ci fichier bi ñuy dugg noonu convoqué mbay te fichier bi kenn am ko noonu dafa doy Clédor mhm. oui. alors noo expliquer euh, euh, kaw Bassirou Diomaye fay yow bokk nga peut-être ci ñi amoon certitude que ni Diomaye du am yi jafe-jafe mais il devra régulariser plus de six mille mhm. euh, parrains yoo xam ni dafa ci am jafe-jafe lan mooy explique loolu ba ba léegi maa ngi am optimisme ak conviction mhm. que Bassirou Diomaye dafay jàll parce que Boubacar Camara moom dañ ko ni woon sept mille la amoon ñu régulariser na ko peut ngi nekk woon ci fichier bi peut ay doublon régulariser na ko Cheikh Diagne Dieye am na lu mu euh, régulariser ay nit régulariser nañu ba dal kon Bassirou Diomaye war na am stock war na am stock boo xam ne mm-hmm. na mu ciy jukkilee ñeneen noonu la ci mën a jukkee pour régulariser parrainage boppam waaw loolu je crois que waru woon génn tey sax bu hmm. dee quatre mille parrain euh, lañuy la ñuy complété loolu ñoom am nañ ko hmm. donc euh, quatre mille parrain moo leen di permettre ñu atteindre le chiffre minimum au delà de six mille bi mooy am waaw parce que ñoom dañu déposé plus que le minimum cinquante six mille neuf cent neuf cent quatre vingt mooy mooy mooy le maximum neuf cent soixante quinze mooy le maximum ñu ñu mën a déposé donc ñoom le maximum la ñu déposé hmm. donc ci li ñu déposé bu ci amee six mille doublons jàpp nañu ni bu amee quatre mille quatre mille et quelques quatre mille mu teg tuuti euh, dina mën a jàll loolu nag euh, mën nañ ko am ci foogu euh, parce mhm. ak région bu bu ñu mën nekk ñoom ñooy seen document ils étaient confiance à Amadou Ba mhm. et à l'équipe qui est derrière lui Amadou Ba bu parce que pour ñu mën a corriger loolu très rapidement mais ala kulli al ñu ngi lay gërëm bu baax a baax euh, jàngat boobu dafa ñëwoon rek juste pour confirmer li ñu doon wax fan yëpp heureusement que peut-être ku mel ni Aminata Touré euh, ñëw na si indi si leeral parce que moom su waxee war nañ ko mën a déglu elle était euh, dans le camp du pouvoir il y encore quelque mois am na tam yeneen i ténor yoo xam ne am na ñu jafe-jafe ku mel ni docteur Abdourahmane Diouf donc peut-être am na ay enseignements yu ñu war a tirer ci loolu jërëjëf Clédor il est déjà parti Cheikh. oui alors euh, tey ay ténor ñoo doon jàll ca conseil constitutionnel. ñu ngi mm. ko doon wax démb. Euh, mu nekk peut-être ay surprise yu mag. Euh, là où peut-être ñenn ñi mun a jàll euh, am na tam ñoo xam ni yàgg nañ ci langue politique bi am problème ku mel ni Idrissa Seck Aminata Touré ak euh, Abdourahmane Diouf ñooñu quand même ils ne sont plus à présenter Anta Babacar Ngom a créé la surprise mais peut-être pas une surprise si ñenn ñi ndax elle a bien travaillé selon ni ko ñenn ñi waxee elle était sur le terrain à l'intérieur du pays gazée parfois à coups de lacrymo lacrymogène grenade mais def euh, def parrainage am ça peut vouloir dire que seul le travail paye mais ci ténor yi d'abord ñi nga xam ne dañoo yàgg ci làng gi am ci taxawaay bu dëgër tey ñuy retrouver wu quand dans des situations parfois très complexes ban ban jàngat nga ciy def donc euh, d'abord euh, je tenais juste à préciser une chose seul le travail paye oui ça c'est un principe mm. mais malheureusement <laughs> au Sénégal quand même <laughs> c'est pas forcément toujours vrai qui paye, ceux qui oui. travaillent ils sont jamais rémunérés euh, à la à la ça, hauteur de leurs efforts donc loolu moom mooy Sénégal donc euh, après bon on pourra entrer dans des suppositions et autres mm-hmm. mais comme ni nga wax rek pour ne pas trop dévier de la question euh, gis nañu euh, ay ténors yi nga xamante ni am nañu ay jafe-jafe ci wàllu parrainage bi mais parenage bi comme ni ma la waxee tout de tout temps ni ko tëggee dafa doon loo xamante ni n'importe qui peut avoir un problème mm-hmm. heureusement donc pour donc que ceux qui se réclament des grands partis et qui ont quand même des députés au niveau de l'Assemblée nationale mhm. ñoom fexe nañu ba bi ñu demee dialogue réglé nañu seen problème mhm. donc aujourd'hui l'état euh, nu mu tudd Amadou mi nga xamante moo doon wootee nii euh, moom il avait plus de trois millions ou voire quatre millions de parrains mhm. <laughs> il n'a jamais osé donc euh, aller présenter li nga xamante ni mooy le parrainage citoyen parce que xam na ne y a des risques la manière dont euh, le mécanisme du parrainage fonctionne au Sénégal xam nañ ne n'importe qui peut passer à la trappe mhm. te loolu ça c'est vérifié ouais. gis nañu quand même des ténors comme Idrissa Seck aujourd'hui qui doit euh, régulariser euh, huit mille parrains si ma mémoire est muy loo xamante ni quand même c'est une grande surprise mm-hmm. Idrissa Seck c'est un personnage quand politique nest pas euh, bi nga xamante ni euh, sénégalais yi ràññee nañ ko mm-hmm. euh, si taxawaayam si si si wàllum politique beeg si wàllum doxinu réew mi qu'on soit d'accord qu'on soit militant ou sympathisant qu'on soit son adversaire en tout cas il faut reconnaître que Idrissa Seck quand même am na taxawaay bi nga xamante ni si réew mi may na ko ak tamit la manière dont son parti est may na ko mu mën a bokk élection may a euh, wuti ay parrainage am ko parce que aussi on va pas euh, bon là où les débutants euh, <laughs> ils sont en mesure de de sa donner des parrains de réussir au parrainage citoyen mooy bi nga xam ne parrainage bi gën a jafe euh, ñu réussir foofu ça veut dire que les Idrissa Seck et autres ils sont parfaitement en mesure donc euh, de réussir euh, à ce niveau là donc problème bi nag mooy parrainage bi comme j'ai dit le mécanisme ni mu ni mu demee forcément day indi ay rëq-rëq malheureusement candidats yi nga xamante teelu mu jàll qui favorisé par favorisé par le sort bi ñu defee tirage donc ñooñu tey euh, ñoo mujjee boo xoolee on est à vingt quatre à vingt quatre heures n'est-ce pas de la clôture euh, du contrôle mm. des nu mu tudd parrainage incendie donc mm. forcément donc euh, ça va se resserrer te wax nañ ko fi waxaat ko fi mooy euh, li nekk ci fichier bi on pense pas que mu mën a pare euh, quatre-vingt-treize candidats donc forcément les doublons dina bëri dina daanu te dina concerner plus ñuy dem mm. plus euh, ça va être très compliqué pour ñu mujjee de ténor. oui dañu nekk ci ci vers la fin. fin malheureusement tirage bi comme ni ma wax rek le sort n'a pas été clément ak ñoom peut-être bu ñu jàlloon euh, aujourd'hui euh, bon. Euh, depuis le premier jour ou le deuxième jour peut-être ils auraient moins de problème mais li gën a criard aussi situa situation bi. Mm. mooy y des parrains n'est-ce pas qui sont introuvables. sur euh, le fichier léegi nag le fichier en voilà donc le doublon on, les doublons on peut c'est c'est une possibilité du moment que ba candidat yi bëri na am na ay tirage donc mm-hmm. euh, forcément day am doublon euh, parce que tamit euh, loi parrainage bi tamit moo ne un un un électeur ne peut pas parrainer plus d'un candidat mais gis nañ ne dans la pratique euh, c'est tout le contraire léegi nag ñoom xam nga aussi ñun suñu politique parfois du ñu am audace on n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout aller mooy lan dañoo ne kenn amul droit parrainer lu ëpp benn candidat donc ils n'ont pas mis les garde-fous pour pouvoir empêcher cela léegi prox ndoll la boo xamante ni y a des gens même euh, yi nga xamante ni parfois euh, xam nga seen euh, parrainage day voilà dafay doon li nga xamante ni c'est intérêt moo koy lal mhm. donc parfois dañuy parrainer candidat parce que am nañu lu ñu yaakaar et cetera mooy naa quelque chose parfois donc gis nañ ko fi y a des gens qui ont fait l'objet d'arrestation par rapport ak jaayum parrain ak yooyu et mhm. cetera donc gis nañ ko fi donc ils les les les dispositions requises pour éviter loolu loolu tey bu amoon le problème de doublon allait disparaître c'est-à-dire que tey am nañu mécanisme bi nga xamante ni teg nañ ko. Mhm. Euh, ba nga xamante ni kenn du mën a parrainer ñaari yoon euh, ay candidats donc du coup après c'est réglé on parle parlera plus de doublon et si on était dans un pays aussi aussi sérieux donc il était il serait possible de pouvoir vérifier kan moo nekk ci fichier électoral bi ak kan moo ci nekkul on se souvient encore. en euh, en 2012 si ma mémoire est il était encore possible grâce euh, au président Abdoulaye Wade euh, lui aussi bon voilà que ñu bëgg ñu bañ wala qu'on soit avec ou avec ou contre sa politique gis nañ ne quand même c'était possible aux Sénégalais d'aller sur un site internet qui a été mis en place à l'occasion nga vérifier est-ce que yaa ngi figure si si si fichier bi donc bu boo figurer wul nga def les démarches administratives nécessaires mhm. pour nga mën a delluwaat si fichier bi bu dee tamit dafa am yi nga xamante ni nguur gi wala yoon da ko jël par rapport ak yow ñu xamal la ko bu doonee ay décisions yi nga xamante ni da nga ko war a attaquer nga dem hmm. attaquer ko mais malheureusement aujourd'hui on est tous dans le flou quand on se rend compte que ñu ngi wax ne ni y a plus de soixante mille parrains introuvables sur le fichier électoral finalement j'ai envie de me poser des hmm. mooy ban fiche ban fichier mooy am moo am ban fichier moom ak ñaata fichier moo am Aminata Touré joxe na réponse bi ci ban fichier lañ yor na bu 2017 la ñuy utiliser donc Aminata Touré Aminata Touré waxam euh, euh, euh, vraiment te mën nañ si bàyyi xel te mën nañ si bàyyi xel mhm. même si je ne suis pas sûr qu'il faut forcément donner forcément donner du crédit à cent pour cent parce que xaw ma mhm. mais quand même Aminata Touré elle a participé élection élection au Sénégal donc euh, il était elle avec le le camp de la majorité ànd ak président Macky Sall moom moo njëkk a taxaw fii nii en 2019 bi ñuy ne opposition bi n'est-ce pas tendance wane na ne opposition moo jiitu mu jiitu ñoom ñoo fi génnoon guddi donc attaqué ne non c'est le parti au pouvoir qui a gagné génne ba jox ay chiffres yi nga euh, euh, dans certaines localité mm-hmm. avec euh, le concours de certains le concours de certains médias mm-hmm. ñu tasaare information wasaare ba nga xamante ni bon gis nañ ne après li mu jur mooy que comme ni ko que comme ni ko Boun Abdallah Dionne Euh, euh, euh, premier ministre en son temps ni mu ko prédiroon ne woon na le président Macky Sall allait avoir cinquante n'est-ce pas nu mu tudd au des suffrages n'est-ce pas donc et effectivement l'histoire lui a donné raison donc Aminata Touré waxam du wax peut-être boo xamante dañ koy sànni dañu taxaw saytu ko te moom war na xam fichier parce que participer na ces élections on se souvient encore de de l'élection des élections législatives moom moo nekkoon tête de liste elle a sillonné le Sénégal euh, leader de l'APR et de Benno Bokk Yaakaar donc am na lu si xam parce que tamit mënuñu ko jiital si liste amul yenn mécanisme yi nga xamante elle maîtrise donc aujourd'hui si elle est capable de dire que le conseil constitutionnel la yor la yor donc peut-être elle a des preuves et si elle a des preuves et moi je pense que aujourd'hui <laughs> le conseil constitutionnel gagnerait n'est-ce pas à à, à se laver à grande eau génn Euh, peut-être je ne sais pas par quel moyen en tout cas ñoom administration li mu leen may mais ñu leeral askan bi sur le fichier qui a été ñu e leeral doit faire ça. oui parce que DGE mooy jox conseil constitutionnel. fichier bi e mooy joxe donc léegi déjà y a un problème parce que man li ma gis mooy DAF n'est-ce pas moom mooy dugal nit ñi quand même si fichier bi donc c'est la direction ah, de l'automatisation c'est la direction de e. l'automatisation ah, du fichier moom moo ko yor moom mooy dugal moom mooy dugal mooy génnee mais ginnaaw bi muy dugal di génnee léegi. les sénégalais les parrains yi nga xamante ay sénégalais lañu détenteurs de la carte d'électeur comment ils ont fait n'est-ce pas pour avoir des cartes des cartes d'électeur et, et ne pas figurer sur la liste ouais. c'est-à-dire loolu bu nekkee am na y'a y'a y'a quelque part nest pas euh, un fossé ou bien y'a quelque part n'est-ce de la tricherie am na kenn ki nga xamante ni peut-être permettre na ay sénégalais am ay euh, ay ay carte électeur alors qu'ils figurent pas sur le fichier c'est qui oui li tax mu mu mu les attentions mooy dafa nekk à grande échelle. parce que plus de soixante mille plus de soixante mille ngay dem ñu ne la huit mille kii ñu ne ko Hadjibou Soumaré ana plus de trente mille Idrissa Seck war a indi. Bassirou Diomaye douze mille. Bassirou Diomaye euh, kii euh, a euh, quelqu'un qui a qui a dix mille. aussi Abdourahmane à dix mille. 2017 am na ñu bëri ñu ñëw di voter si man centre boo xam ne foo laa doon couvrir élection législative bi nekkuñu ci fichier bi ces personnes là n'ont pas voté et yow peut-être da jàpp ne yow cas isolé nga xëy na benn nga mais benn benn yooyu su dajaloowee dafay bëri. maintenant bii nag xëy na élection présidentielle la. enjeu yi gars yi nañu enjeu yi du mm, benn. Mm, mm. on découvre des dizaines de milliers de de de de. oui d'électeurs qui ont des cartes d'identité te nekkuñu ci fichier bi. bu dee loolu am na moom am na bu dee bu dee loolu moo am bon man en fait. Euh, euh dama jàpp ne bu dee loolu am na kan la ñu mën a tuumal c'est l'administration qu'on va pointer du doigt parce que yow tey Fatou amoo pouvoir man awma pouvoir di dugal nit ci fichier wala di ko génnee di di di éditer di éditer n'est-ce pas ay carte yi nga xamante ni euh, nit ki da koy jëfandikoo pour mën a dem voter wala pour mën a doxi soxlaam donc yooyu noonu ñun on n'a pas ce pouvoir donc l'administration comme j'ai dit à travers la DAF doit prendre n'est-ce pas euh, nu mu tudd cette information là au sérieux filtrer xam n'est-ce pas fan la ak mbir yi sooxee est-ce que y a des gens qui sont tapis dans l'ombre capables de fabriquer parce que un moment donné aussi on, on, euh, avait parlé on avait dit qu'il y avait des gens des experts qui étaient en mesure de créer n'est-ce pas des cartes d'identité qui ne pas on avait accusé donc le président euh, en son temps qu'il avait amené des Israéliens je de quelle nationalité donc ñi nga xamante ni ils en mesure n'est-ce pas de lui éditer le nombre de cartes dont il avait besoin mm-hmm. donc aujourd'hui est-ce que loolu dafa am Sénégal d' abord ça c' est à nu mu ay ay yi nga xam ne ah. carte électorale yi nga xam ne daaf defaru ko ah. bu dee tamit loolu amul kan moo ko defar bu dee DAF moo ko defar aussi DAF comment la DAF peut s'arranger pour créer un fichier euh, bi nga xamante ni joxe nit ay carte d'identité alors que reversé wu ñun ci fichier bi mais loolu faatu dafa gën a yaatu parce que comme on man dama jàpp ne euh, et la vérité mm. la poli nu mu tudd élection c'est un long processus long processus mu ngi commencé ci inscription yeeg yooyu noonu ba nit ñi di jot seen carte ak yi lu mu ne ba organisation ba parrainage ba li des ba même après élection ba ñu passer le témoin tey Euh, dañu gis ay sénégalais yoo xamante ni gis nañ leen fii ñu inscrire pour des élections ñu retrouver seen cartes dans des régions yoo xamante ni ñoom sax xamuñu fa kenn on a vu des sénégalais qui sont inscrits à Dakar on a retrouvé leur carte d'électeur à Matam ici à Dakar euh, Dakar commune Dakar département ñu ñu leen dans le département de Guédiawaye am na ñoo xamante ni gisuñu ma carte donc xam nga loolu déjà loolu rek loolu rek le jeu et puis euh, euh qui étaient détenteurs c'est-à-dire les anciens ñi nga xamante ni euh, amoon nañ dix-huit ans ci élection yooyu passé ñoom ils sont naturellement détenteurs de leur carte d'électeur c'est les primo-votants d'habitude qui ont ce problème là donc ñi nga xamante ni bi vote bi di ñëw donc euh, bi bi vote bi di waaj a ñëw la ñu motal seeni dix-huit ans donc bi ñu motalee dix-huit ans aussi ñoom nekk ñu ci

donc des élections libres et transparentes la transparence fii soxla nañ ko ci parrainage bi ñu xam kan moo nekk ci fichier bi ak kan moo nekkul ci fichier bi ku nekkul ci fichier bi mu am droit nekk ci fichier bi pourquoi ñu jëlee ko fa ku amul droit on peut comprendre si peut-être la personne a fait l'objet d'une notification et cetera moom bu ko toppul peut-être moom la mais même su nekkee ni sax dafa am décision de justice alors que la personne on n'a pas notifié la personne la personne a le droit n'est-ce pas taxaw ne radiation bi ñu ma radié ko attaquer bu ko attaquer tey bu ko yoon mayee dëgg mu mu mun ko delloo bu ko yoon mayee dëgg it mu xam ne ni moom amul dëgg après mu continuer donc en attendant qu'on euh, euh, régler ce cas vraiment euh, les doublons c'est un problème mm. mais on a vécu encore un autre problème bi nga xam ne moo gën a moo gën a yéeme moo gën a moo gën a doy waar nest pas mooy ñu gis ay nit ñi nga xamante ni am nañu seen carte électeur ñu xool ci fichier bi gisuñu leen fa loolu doon vraiment affaire affaire affaire bu doy waar. invalidation yi ñoo ngi continuer ca conseil constitutionnel am problème mu doublon 28 000 doublons externes euh, moom tamit danu ko invalider le candidat Ibrahima Sall également euh, qui euh, ne pourra pas régulariser parce que dafa am ay parrains yoo xam ni doublon la plus de 17 000. Mahmoud Ibra Kane démissionné na F24 peut-être pour ñi nga xam ne amaguñu information bi le procès de Ousmane Sonko Mame Mbaye mu ngi wéy ca cour suprême Cheikh loolu tamit ñu ngi koy déglu. ba xam fan lay mujjee maintenant ñu ñëw ci peut-être euh, kaawu Anta Babacar Ngom Cheikh euh, am na tam lecture boo xam ne war nañ ko ci mun a def. oui euh, kaawu Anta Babacar Ngom quand même euh, disons que c'est c'est une surprise nee nañu le travail paye je suis parfaitement d'accord. Mm. a le mérite. donc euh, dem ci terrain bi elle euh, a elle a le mérite mm. n'est-ce pas euh, de se présenter de dire qu'elle va être candidate à la candidature dans un premier temps et finalement pour être candidate à l'élection présidentielle c'est tout à fait à son honneur léegi nag dafa am li nga xamante ni aussi les Sénégalais ils ont le droit de se poser des questions mm-hmm. Idrissa Seck fu mu mënta jàll ci parrainage mm-hmm. ñu gis benn Anta Babacar Ngom qui passe haut la il faut se poser des questions Anta Babacar Ngom aujourd'hui la vérité est qu'elle n'a même pas une structure bi nga xamante ni euh, euh, couvrir na n'est-ce pas l'ensemble du territoire national ça je n'y crois pas en en un de temps mënu ko def mais elle peut avoir des alliés mais tey benn affaire benn affaire dafa am mooy c'est vrai elle a sillonné bon elle a été gazée parfois Et bon ça c'est je pense que elle ne prend que sa part du gâteau parce que gis nañu aussi les Khalifa Ababacar Sall donc dans leur tournée plus précisément à Matam donc euh, gazé nañ leen fa donc ñeneen ak ñeneen donc ça bon je pense malheureusement avec le régime de Macky Sall moom mm. s'opposer c'est devenu un crime ou un délit quand tu t'opposes euh, forcément di nga ñam lacrymogène boo ko miinul nag di sonn mm. donc problème bi mooy euh, tey Anta Babacar Ngom ñëw na mën nañ ko mën nañu balancer la comparaison n'est pas forcément raison mais quand même dinañu dinañ ko saytu saytu tey Anta Babacar Ngom bu taxawee docteur Abdourahmane Diouf taxaw quelqu'un qui nga xamante il a d'abord milité au niveau du parti Rewmi il a fait ses preuves donc euh, dans la politique léegi nag euh, quand même même par rapport à la production intellectuelle bi nga xamante ni daf koy def donc euh, c'est un honneur toujours moom boo ko invité mm-hmm. sur des questions économiques sur des questions structurelles donc quand même dalay indil da xam ne kii n'est-ce pas que qui qui soit de euh, que nga d'accord ak moom d'accord di nga xam ne ni kii kat vraiment euh, li muy wax xam na ko xam na réew mi peut-être aussi dañuy am njortu gu rafet que am na yéene n'est-ce pas et que il s'est mm. donc demoon na fi élection euh, élection euh, législative ànd ak euh, waa Awalé je pense ah c'est ça donc euh, mu dem donc ba ci je pense que c'est voilà c'était Aar Sénégal Aar Sénégal donc du coup demoon na ak Aar demoon na ak Aar Sénégal coalition boobu noonu ñu am benn député je pense mhm. donc léegi Thierno Alassane mooy ñi nga xamante ni vraiment ñooñu tey bu ñu leen di natt politiquement mhm. n'est-ce pas ce n'est pas le même poids c'est pas la même envergure mhm. que ki nga xamante mooy Anta Anta Babacar léegi nag il faudra qu'elle vraiment après finalement et, pas la seule mm. am na ñeneen man d'accord naa peut-être am na ñeneen par exemple d'aucuns disent. Euh, Cheikh euh, Balma docteur